bisu màgg yi muy bisub aljuma bis la boo xam ne ay njariñ yu bari da ciy laxasu njariñ yooyu nekk teewee gi dina ci am solo lool ku aljuma jàll ba aljuma fekkaat la fi kon dalay wóor ne yiw bu bari fekkaat na la ci bis yi bis yëpp bis yëpp baax nag bisub aljuma moo gën ci bis yi mooy seydul ayaam ni weer yi ay sang heure yi amé ko non non la bis amé amee ay bis yo xam dañu gën ko xam yalla dogal na aljuma fekk na la fi ba aljuma fekkat la fi lol ak cant yalla la ndax lu koy firndeel aljuma gi jall am na fi bokkolo nek ñen ñi jugé nañ fi ñen ñi mënatuñoo dox seen yitté kon bu la yalla xéewale ab aljuma rombo aljuma fekkat la fofu lol ak cant yalla la gu reey reey motax bismi ñaan luñ fi def ci yalla ko sun borom nangu yalla yalla defal ñu lepp mu nekk yiw bok na ci yi nga xam nak lu bax la ci waxtu yu gannaaw bu julli aljo ba nopi ay askar askar yoy nak bok na ci kuko man bu jullete aljo ba nopi defal falax yi ñaar yoon l'ikhlas juróom ñaar yoon ayatul kursi juróom ñaar yoon fatiha juróom ñaar yoon ak nasi juróom ñaar yoon bok na ci yi nga xam ne ku koy ñaan waxtu aljuma bu nekk gannaaw julli loo ci ñaan yàlla mën na la ko defal bi ci desaa tamit yàlla mën na laa xéewal ajjuma gii beneen ajjuma gii ñu mën na la fa fekkaat kon loolu askar yu am solo la ci ginnaaw bi ñu jullee niñ ko baaxoo defee nag dañuy jël ay ay tomb yu am solo mooy ay mawdon yoo xam ne yu fasantikoo lay doon su ñëwee ñu taxaw ci barab yi di ci laayante biir ndax yonent bi saa sallam moo ne wax ad diin nasiha kon diine laayante biir la koy laay biir nag mooy li alquran indi wala xadis wala qiyaas wala ñi nga xam ne dañ cee dëppoo mooy al ijma mooy loo xam ne borom xam-xam yëpp maase woon nañ ne lii mooy nangam ñu laayante ci biir laayante biir nag lu am solo ci jullit bu mënti kaa doon ndax fàttale day jariñ ki nga xam ne mooy aji wax ji waaye kiy déglu tamit fàttale da koy jariñ bu fekkee tomb bi nu fas ne jël tey dañoo fas waxtaanee lu aju ci diggante waajur ak ak ay domam wala wajur ak domam wajur ak domam nak ku ne am nga ay responsable yo xamne nek na ci sa loss ku ne dang ko wara a xel ndax yent bi di wax ne kul képp ku ci nek sam lo bu ëllëgee dees nako laaj la sam wajur bi kon sam la ci ay domam waye domi tamit ñoom dañu wara sam ko leer gi dox digënd seen yaay ak seen ay baay waye responsable bi ñu jëk nak mu ngi jëm ci waajur bi ginnaaw bi nga xam ne yàlla dénk na la ak njaboot njaboot gi la dénk nag daa am àq yi dox sa diggante yow ak ñoom bi ci toppaat waajur lu am solo la ci diggante jaam bi ak ki nga xam ne moom la ko yàlla booleel mi kilifa mi waajuram waajur nag lu mat a fonk la ndax alquran suñu borom day wax ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan Moy na ngeen ma jaamu man yalla mi nga xamne ma leen bind waye na ngeen ma wéetal na ngeen ma top waye na ngeen rafetali jëm si seeni ñaari wajur kon yow mu non da ngay top yalla ba nopi di wan waajur di wan say wajur gannaaw loolu ku ko def yaang ci njumta njumta ni moy da nga bëgg top ay njort njort yoy nak nga ne na jaamu yalla waye samay wajur yi ma yàlla war leen fonk du mu leen fonk da fay bëri lu mel ñoo ci alquran sa bu ko sun borom waxe rek lu mu na ngeen dem jëmale rafetal jëm seeni ñaari waajur moo da gis xeet nit ñoo xam ne dañuy dugg ci ay liggéey di sonn di def lu ne ñu koy def pour avancer waaye mënuñu avancé lu koy waral mooy ñu ci ëpp dañoo dem ba wan seen ay waajur gannaaw wala ñu doyal seen waajur te nit nag ki yàlla boo leen nga war koo fonk war laa digal war laa tere ngay def boo ñëwee ba di ko wan gannaaw boo jàppee ni mën ngaa réussir ci li nga jëm da ngay nax sa bopp yalla sun borom bu ne la nang ma jamm moy nang ma jamm te bu ma bokkaal dara lu ñu ci wa bil walidayni ihsanan kon na nga rafetel jëmele ci kan say wajur wajur yo nga rafet jëmele nak boy ànd ñom anda nyom, nga anda ci dunia ma'rufan moy ak ngek bul caagin nak sa wajur bi ngay top dalay top ci dalay dalay moy yow yalla nga di ci top dedet moy su nee la Juli julli waro bàyyi julli ndax julli dañ ko ko sant sant la kon su la toppal waaye rafetal jëmal say waajur mooy say waajur yooyu nañ lay teg ci nga li nga xam ne moom la yàlla gërëm ci misaal waajur bu naa la deel julli deel woor wa amuru ahlaka bi salaati mooy digalal say njaboot ñu tegu ci yoon di julli mooy fexe leen ba waxtu julli bu jotee na nga yar sa njaboot ci ñu fexe wéetal yàlla moo tax képp ko yàlla dénk ak njaboot fexeel ngir yàlla nga jàngal leen jàngal leen ban xam naka lañuy ñuy toppee yàlla naka lañuy ñuy yalla naka lañuy ñuy li yalla suñu borom teral tere ndax su fekkente ne sa doom am nga ko nga war ko jangal war ko yar war ko tuddé turu bu baax war fexé mu top lu baax nga xol ñimi andal ñimi jëflantel ba bu ëllëgee dana tax du jaar fo xamné jaar la woko kon léegi su fekkente ne wajur bi yalla bol na la ak mom kon dang ko wara top waye top nak dafa wara nek ci li nga xamne mom la yalla gërëm way waroo ko top ci lu yalla di téré ndax képp ko xamne top nga sa wajur ci li yalla téré bu ëllëgé ay bakkar yo ci jëlé yappal ni ya ko rek sa bop ndax yalla nee la julli sa wajur du bul julli nga ba waxi sa wajur ba fi waxi yalla top sa wajur kon bu ëllëgé da ngay dajeg daani yalla benen bi ci toppaat yeen bi saa sallam daan wax ku ni wax ko way si ne su ngeen ko gisee dee leen ko ñaanloo yalla ndax kum ñaanal yalla yalla jéggal Loko waral kooku non yentibi don wax lol moy da topon ay wajurum moy da fexewon bari ay wajurum bëgg te yalla diglé ko mu top len di ci góorgóorlu kemtu lay kàttan motax fum len waxon ni fu ngeen gis jëm jooju bu ne ko ñaan la yalla jéggal len da fa top ay wajurum benn bi coppaat ridwaanullaahi fi na ngeen xamne ne yalla mu ci suufu seen i ay wajur limi nekké lol moy wajur bo xamne da fa top topp yalla bo nopp la ci tek sa bu la wooyee ci am rukku ba gërëm la jappal yalla gërëm na la hamne li def suxtul lay fi suxtul walde mu ne ngeen xamne merum yalla mu ngi seen meri wajur kon yow mi nga xamne yalla daf la bolé say wajur bo nopi nga leen i wan gannaaw di leen doyadal di leen gëdd di leen wax lu ñaaw yow nga japp ne ëllëg yow kenn mën na laa gërëm ba nga am ngërëmal yalla soko défé da ngay nax sa bop ndax lu koy firndel yalla dane sama ngeureum mu ngi say ngeureumal wajur waaye sama mer mu ngi ci say meri waajur kon saa boo wanee say waajur gannaaw ci li yàlla bëgg bu ëllëgee keneen koo topp tamit bu la gërëmee mën ngaa jàpp ne am nga ngërëm waaye amagoo ngërëm ndax yàlla wax na la ni la lii boo ko defee toppee ko nii mooy li gën nga ba yàlla wax nag di topp waxi keneen wala toppi leneen tamit wuuteeg li yàlla wax bu ëllëgee mën nga cee dajeeg daani suñu borom mor suñu borom de wax ne waqadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan moy yalla dogal na def na moy na ngeen ko jaamu ta bañ koo ak dara waye na ngeen jëmele rafetal seen jëmale seen waajur ñaari waju yi imma yabla indaka al-kabir ahaduhuma aw kilahuma mune amana amaana seen waajur yi leen yàlla kat yeen ñaar kenn ki mën naa màggat ci say kanam wala ñom ñaar ñëpp ñu maase magat waye bu len wax nak ufin moy bu len wax ne ah diw de mom sama yaay mom xamna lim bëgg dafa yom ndax parce que man duma liggéey sama liggéey ba nopi di jox duma ko def wala sama wajur sama yaay bi damay fontoo lu mu bëgg du ko def ngay ñew di gëdd say wajur wala uffin di leen wax kaddu yo xam mu ne bu wax lol de waxal wax ju woyef ba nopi soufel sa bop jëmale sa ak say ñaari wajur nga wax yalla kat ning nga ma gëremé won ni ni nga ma yërëmee won sama ñaari wajur ma nga ñaan yalla nga yërëm leen ñom ñaar irhamhuma kama rabbiyani saghiran moy yalla sun borom ma nga ñaan ni ma won bama nekké xalé yalla nga yeureum len comme ni ni ma len yeureume ni kon su fekke da nga bëgg am ngeureumal yalla faw nga top say ngeureumal wajur ci nak ci li yalla bëgg sa wajur bi nga xam yalla bol na la ak mom nak war na la yar mo di bi day wax ne wajur may teggin wala may domam li gëna rafet moy jangal ko ba nopi yar ko ci yar rafet yar woo xamni bo fu mu bëgg a mel ñay sa gis doomi jaam nga ah diiru ak a yaay baayam da ko jangal wala da ko yar ba nga xamne ko gis bëgg melni mom ni loolu lañ wax moy ko xamne ne da yar ak njabotam tek leen ci li yalla gëreem ba ko gis xaymee bëgg melni mom waye ko xamne da nga am ay doom nga japp ne yow nañ lekk nañ naan nañ tëdd fu noy nañ am téléphone loolu nga japp ne moy ak yar déet lool loolu mo bàyyi may ñoyam loolu moy dundal da ngay xont rek waaye yaro yar moy ngay xam sa doom ci lan lay xey ci lan lay yendu lan la wara wax ak lan la warta wax waajur bari nak nag ñoo tayle sen ay dom tayle gi moy len nga am ay dom war len jangal, ñi wax deug nga ngat len fen lo fen lo gi moy da ngay gis kilifa gu nek ci kër wala waajur wu nekk ci kër am ko koy set mu wax dom ji ne ko nek sama yaay nek fi yow kon déjà sa dom judd na nga war ko jangal wax deug ba nopi diko fen lo naan ko nek sa yaay nek wala sa papa nek dama nek dama genn xale mom bu magge mom di def loolu yow jappal yow yow wala yow yaay ya ko njëkk a womati loolu ndax parce que yaa ñew di ko wax loolu amul te waxoon nañ ci tomb bee passé wax lu amul bàkkaar yi ci nekk ak danger yi ci nekk bu ëllëgee bu ko jaam bi tuubul dajeeg boromam kon sa waajur yi yàlla ginnaaw bi mu la booleeg ñoom kon da leen a war a fonk ba noppi jox leen wàccuwaay bi nu yelloo am na benn waay bu ma si ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax naan ko dama bëgg nga wax ma jan jëf mooy jëf ji nga xam ne boo ko defee yàlla dina la sopp mu ne ko jën jëf moo ci gën lu mu ci wax mooy julli ca waxtu ba waaye nag lu ñu ci teg mooy yi waalidayni mooy fexe nga rafetal jëmale see ñaari waajur lu ñu ci toppaat mu ne jihaad fii sabilillah kon da ngay dégg ne kon julli sa waxtu ba lu ñu am am solo gannaaw bi loolu jàllee mooy biral mooy jël lu baax jëmale see ñaari waajur yëpp yi nga xam ñoon la la yàlla booleel waaye nag jihaad fii sabilillah mooy lu ñu wootee ci lu baax ñu ngi tabax jumaa fële nga génne sa alal def ci te yàlla rek tax ñu ngi wootee lu baax fee ñu ngi defar ay yoon nga jël sa alal def ko ci te yàlla rek tax fii sabilillah ci loo xam ne ñëpp koy jëriñoo nga mën koo def te yàlla rek tax mu ne loolu de bokk na ci jëf yi nga xam ne ku ko yàgg def yàlla mën na laa sopp kon ku bëgg yàlla sopp la fexeel di julli ci waxtu ba te nañ ko bëggee bu ci toppaat nag mu ne lu ci topp mu ne birul waal day di kon rafetal wala topp lu baax jëmale sa ñaari waajur loolu bokk na ci jëf yi nga xam ne bu ëllëgee mën na la jural taxé waye bu ëllëgé mën na la duggal mën na la duggal aljana amna ci ñenn ci gaay dañ ñëw ci yent sallallahu alayhi wasallam di ànd ak moom pour def lu baax yent dana la ndax say wajur yëg nañ ko mu ne déedéet mu nga top leen kon so leen topé rek yëgal ni kon lepp lu am ci tiyaba ci ci lé dang ko am kon suma won waxoon moy say ñaar wajur so leen di top dang leen di top ci lo lu tegu ci xam-xam waye lo ne du lal bokale yalla moy lo xamne ne sun borom da koy téré sa wajur bu neela bu ko def kon dang koy def motax sa bu neela topal sa ñaari wajur nang leen top ci li yalla bëgg waye nak nang leen top ci lo xamne ne boo leen toppee di nga am ngeureumal yalla kon képp ko xamne ne da ngay bëgg top say wajur te doo leen ci li yalla gëreum bo ëllëgee tamit bo dajé di dé di nga dajé mbugalum sun borom li tax lolu moy jambi sa bu ko yalla denké ak njabot li ci njëkk ci moom mu jàngal leen tawxiid tawxiid mooy naka la ñuy fexee ba duñ bokkaale yàlla waaye naka la ñuy jëlee yàlla teg ko ci place bi nga xam ne moom la yellool ba duñ duñ jël place yàlla di ko jox kenn boo gisee yenn saa yi nit kii di wax lu ëpp lu ko waral mooy ñàkk xam ne place bii muy teg nit kii nii yàlla rek moo ko yelloo lu ko waral mooy ay waajuram xamaluñ ko naka la ñuy kennelee yàlla naka la ñuy toppee yàlla ba noppi yaruñ ko jàngaluñ ko nit nag saa boo ko yarul jàngaloo ko bu ëllëgee lu mu def di nga ci am bàkkaar koo xam nak sa waajur dalaa jur ba nopi yaru la jangalu la nga dem ba nek magum jëm yow nga war jël ses responsabilité jii ma li nga ne sa waajur xamul la ko won xamul lay looy wëlbati wax na sama yaay dama toñ wala sama baye dama tax jangaluma sa yaay ak sa baye toñ tooñ nañ la gaa waye toñ nga sa bop lu koy firndel mo yow sa mbirum aduna lepp lu ci yittel da nga góorgóorlu ba fay xam ko ci anam bi nga wara waye sa mbiru diine mom sa yaay ak sa baye ñoo ci tardé sa mbiru aduna mom baye woko sa yaay ak sa baye te fii lépp ci nit ñi seen mbiru àllaaxira moom dañ koo jël nag woyofal ko lool lépp lu ci waaye wax ñu gëm ko waaye seen mbirum àddina moom góor góorgóorlu nañ ba duñ fexe di ko bàyyi kenn mu ko yàq fi doon ni kii yor palaasam du xool koo xam ne mënta jaay wala mënta xam ni ñu er-, ni ñu organiser wàllu xaalis bi ci misaal day dem xooli ku mën comptable mën a régler xaalis xam ni ñuy dugalee xaalis xam ni ñuy génne xaalis mu teg ko ci place bi waaye du fekk koo xam ne day làmbatu naan baax naam baaxul wala déedéet kon moo lay xamal ni lépp ci nit ñi seen mbiru àllaaxira lañ jël fal ko lool waaye seen mbiri àddina moom duñ ko fooye kon koo dégg mu naan sama yaay jàngalu sama baay ñoo ma tooñ te jàngaluñ ma te moom mu toll ci jàng demul gëstu ji wàllu diineem bu jàppee ne bopp yaayam boppam lay nax ndaxul kenn de boppam lay nax te kiy wax loolu yenn saa da nga gis mu am doom de doom ñu toll ci jàng du ko yóbbu mu jàng de da koy fesee fesee ne dugal ci wàllu àddina mu xam ji ma ni mu def fexe ni mu ma def ba am xaalis waaye moom it yaayam ak baayam tooñ na waaye moom it tooñ na ay doomam kon képp koo xam ne yàlla dénk na la ak njaboot nga bëgg bu ëllëgee nga mucc ci ay pe ay ay ay fitna njaboot bu naan doom day daw yaay yaay daw doom loolu moo ko waral mooy parce que jàngalooy say doom yaroo leen ci lu yàlla bëgg bu ëllëgee tamit boo dee da nga rusa gisante ak ñoom te suñu boom dafa waxoon yaa ayyuhal lazina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naar mooy yéen ñi kilifa yi yéen ñi waajur yi fegal leen seen bopp safara waaye fegal ko seen i njaboot du caagan da nga ñëw naa la safara da nga koy jàngal xam ko xamal ko fu mu war a teg tànkam ak fu mu war a teg bu ëllëgee mën naa mucc waaye mën naa muccal ak njabootam bu yeeyee bu ëllëgee tamit nga mucc kon képp ku bëgg a dimbali sax njaboot fexeel nga teg leen ci yoon bi nga xam ne moom la yàlla gërëm mu yoonu siraatal mustaqim te fexe xar sa tànk tuwee pour ñu jaar ci xam nga kilifa gu doy ni yow yor say doom di leen dundal ñu dëkk sa kër nga defal leen lépp nga ne mënuloo ma ko dara loolu ay ndax parce que ya ko jox mu lek diko ko jox mu nan bu xeye sa courant lay jëfandikoo sa ndox lay sango lepp ya koy defal nga yow mënuloo ko dara ta mo ne bu xale bu ko bu defon dara am jombe bu rëy rëy yaay dem taxaw ci ba jombe bobu nga fexé def ay jéego ba lol bañ ko bañ ko bañ ko kuté dara kon yow mën nga ko dara da nga ben responsabilité bu nga ak yalla durus kon bépp kilifa go xamné wala gep wajur boo xamné bañ nga ngaaru sa ak sa borom fexal nga yar sa njabot ci li yalla bëgg bi ci say doom dee leen tuddee tur yu baax tur yu baax da ci am solo waaye sama doom la lu ma neex laa ko tuddee képp ku tuddeewul sa doom tur bu baax bu ëllëgee di nga ko layeeg di ko layeeg moom comme ni ngay ñàkk jàngalee sa doom diineem ba mu ñàkk koo xam bu faatuwaalee noonu ya bu boo dee di nga dajeeg moom yàlla laaj la ko waaye sa doom bi nga yor nga war koo tuddee tur bu baax ba tax bu ëllëgee moo xam ne tur bi nga ko tuddee baax na nga ñàkk ko tuddee tur bu baax bu ëllëgee tur woowu tamit di nga dajeeg sa borom di ko layeeg moom kon képp ko xam bëgg nga muccu ci ay ayub adina bëgg muccu mucc ci ayib àllaaxira mooy góorgóorlul njabot gi la yalla denk nga fexé yar len ci ni yalla gërëm waye fexé top lo len yalla watandiku len ci ay mbir yu dugg kon sant yalla warnal de waye warna nga sant jëmele sa ñaari wajur sa ñaari wajur yoy nak ñom la la yalla bolel ñu indi la ci kaw kon sabab ci ñom la jaaree gin jaaree ak ñoom nag ci coobareem yàlla suñu borom subhaanahu wa taala la jaaree ci la ci la ci la ci la ci la jaaree beneen bi ci toppaat bu nee suñu borom di wax nee am ne innama amwaalukum wa awlaadukum fitna lu koy waral mooy njaboot goo xam ne ak alal joo xam ne yàlla dénk na la ko te ñaar yëpp ci anam bi ko war a sàmmee sàmmee wu ko noonu ci misaal alal joo xam ne da ko amee fitna wala noo depaam alal da nga koy def alal jooju fitna la lay jural bu la jural fitna ci àddina tamit àllaaxira seetu na la jural fitna waaye njaboot goo xam da nga ko am ci anam bu baax ba noppi tegoo leen ci benn yoon am na ñoo xam ne jëluñ benn responsabilité seen seen ay doom jëluñ ci benn responsabilité da ngay dégg ñu naan njaboot ga njaboot kanaara bu ñu demee tëkkale nit ak kanaar bu ñu demee ba di ko tëkkale loolu ak manqué mënu ko weesu ndax yàlla dénk la ak njaboot nga war leen a jàngal war leen a teg ci yoon ngay dem ba yow ngay nduróole sa bop yow ak kanara nga ne kanara mom jabar gi day jiitu mu top ci gannaaw kon yow bo demee ba sa njaboot di la jire yow gu ñoo la mujjé mu waaye yow moomutoo sa njaboot lu koy waral nak li waral lool nit ki di wax moy ñaka xam responsabilité bi dox ci digënté mom ak ay doom kon wajur sàmm la bu ëllëgee dess nako laaj lam dam sam ak naka la kon kon bépp wajur wo xamni bëgg na bu ak boromam mu laaj ko nan la don sammé njabot gi day fexé di yar njabot gi ci yarin wu dëppoog wu yalla santane waye fexé jangal njabot say dom sa da nga wara xam ñan lañu andal ñan lañu andal sa dom war nga xam kër kan lañu dug ak kër kuntu dug ndax so bëggee sa dom bax da ngay fexé dug andal and no yu bax tey ji yow mi ci juma ji fekk fa xalé bu ndaw bo xamné mu ngi am fukki at war nga fexe xam xalé bob moy kan ak gën kër dëkk nga indi ko sa kër mi and ak say dom nga xam ne kat ku bax waxtu julli jotee mu bayyi limi def dem julli nga xam ne kat moy ku bax kon and ak yaa ngi def yaa ngi li nga war def léegi nag loolu lépp boo ko defee nag bu ëllëgee bu njaboot gi jaaru ci yoon dañuy xam yow jëlal nga say responsabilité jàngal leen utal leen ay àndandoo yu baax ñoom ñoo toog pour ci yoon bu baax boo ëllëgee nag boo dajee sa borom doo tiit doo ragal ndax parce que lu koy waral mooy li nga waroon def lépp def nga ko sa ak say doom kon ñoom bu ëllëgee ñoom ñoo jël responsabilité bi nga xam ne tegoon nga ko seen kaw kon diggante waajur ak doom ku ne am ngay responsabilité yi nga xam ne dafa war nit ki nak su bëggee di ñaan yàlla wala su bëggee di topp yàlla faw mu koy toppi ci anam boo xam ne moom la suñ borom bëggee koy toppee suñ borom nee na la jaamu ma waaye jaamu gi may jaamu nag bu ma bokkaaleeg dara waaye na nga rafetale jëmale say ñaari waajur say ñaari waajur yooyu na leen topp ci anam bi nga xam ne mooy anam bu rafet te buñ la moyloo yàlla ba nga koy moy kon képp ku ne da ngaa bëgg a topp say waajur bali yàlla tere nga di ko def bu ëllëgee tamit da nga dajeeg sa borom te waa di nga ci am ay daan kon sa waajur wi nga xam ne moom la la yàlla boole da nga ko war a topp ci anam bu rafet moo tax ba ñuy wax ne nit ki ci alalam fan la ko war a njëkk def dañ koy wax ne foo ko gën a jëmale mooy jëmale say ñaari waajur kon jëmale sa ñaari waajur yooyu ak ñi nga xam ne ñooy say jege ñaale yasaluunaka maasa yunfiqun qul ma anfaqtum min xayrin fali walidayni wal aqrabina kon saa bu nee sa alal jii nii am nga ko ñu ne fan nga ko war a def ñu ne li ci jiitu mooy sa ñaari waajur yi nga xam te ni ñoom lañ la boole kon so amé alal rek bëgg yiw fekk la ci qul ma anfaqtum min khairin fali li kon bo bëggé yiw bi ngay def ci sa alal ji nga am ni ta nga liggéey ko mu leew yiw bari fekk la ci lu ci jitu mu né jëmaleel say ñaari wajur kon su nit ki bëggé am ngeerumal yalla mbaam bëgg top yalla ba top yalla gi bo liggéey mën ko jural njariñ ci adina na fexé di top ci ay wajurom ci anam bi nga xamné anam bobu lako yalla yàlla pour mu top ay wajurom tam watandiko ay meri wajurom ndax nit ki mënoo say waajur di la yar di la toppaloo yoon ba noppi nga leen di merloo ba noppi nga bëgg am ci loolu ngërmal yàlla kon yenn nit ñu bëri ñu ngi ñaanlu di takk lu lañ def ko mënuñu avancé lu ko waral mooy dañoo wan seen i te wan gi leen wan gannaaw dañ ko wanaale li yàlla bëgg ci ñoom kon mooy nit ñi nga xam dañuy saxaar rek duñ tàkk moo leen foo leen fekk dañuy nekk ci benn mbir mi dox ba ci yàgg ñu xëy lépp yàqu lu ko waral mooy dañoo waroon a jiital jëmale rafetal jëm seen ñaari waajur ñu daal di wan seen waajur gannaaw wan seen ay mbokk gannaaw te loolu lépp dañ ko def ngir bëgg seen koom-koom bi gën a bëri moo tax foo leen fekk ñooñu rek mën nañu am alal de waaye dañuy xëy xëy rek ana diw alal ji dem na kon li la waxoon mooy boo amee alal bëgg alal ji yàgg ci yow bëgg alal ji gudd fan ci yow fexeel nga jiital rafetal jëmale say ñaari waajur waaye jëmale sa ay mbokk say mbokk yi nga xam ne yàlla boole na ak ñoom te mënoo dem bàyyi la mënuñoo dem bàyyi la kon saa bu nekk day rafetal jëmale ci ñoom kon wu ci nekk dañ laa dénk nga yar say doom jàngal leen ba noppi tuddee leen ay tur yu baax bis ban juddoo bu bis bi dellu si waatee di juróom-ñaareelu fan ba lu ñu la wax mooy ba amee ak gàtt nga rey ko rey gi nag dañ ciy jublu jaamu yàlla ba noppi boo noppee nga saraxe leen loolu mooy li nga xam ne war na la ci ñoom ba noppi fexe nga xam ci lu ñuy lekk lu mu doon lu ñuy naan lu mu doon kan la ñuy àndal ak kër kan la ñuy teew am na ci ñoo xam ne seen doom yi sax xaralante na ci kër ndax xar mi boo xëyee di di di di di nga ko xont mooy di ko di nga ko jox mu lekk di nga ko jox mu naan bugul dina di di nga ko jàpp mu tëdd ci biir fi nga xam ne mooy gétt gi waaye seen doom yi nañ lekk dinañ naan waaye duñ lijante fu ñuy yendu duñ lijjanti lu fu ñuy fanaan suñu waxee ñu naan diw mënulu ma ko dara kon yooyu bokk na ci baat yoo xam nit ñaa ngi koy faral di wax sama doom mënulu ma ko dara dama koy bàyyi mu def lu ko neex rek saa boo bàyyee bu mu def lu ko neex bu ëllëgatee da nga dajeeg sa sa borom kon gone sa bu amé juroom ñaari fexel diko di ci diiné di nampatal ci tawhid moy di jangal asaman si la tim ni nga nim yaato ni mu te ku ne mëna ko xol xool do am benn problème nga xam kan moko def moy yalla yalla mom nak mo la bind bind ma bind ñu jiitu bind ñu mujj te bu ëllëgee dinañ ak mom nga xamal ka suuf si lu mi rëy ken rëy kenn moko mom mi yalla kenn mo ci mëna def di dindi mi yalla nga xamal ko sa wax ji ni fum ag jappal jàppal na ci kàttanu yalla agge sey sey jëf lepp ci kàttanu sun borom la bayiko ko nga xamne indi gem yenn ci kaw suuf da bëgg nañ ni jaamako ko bëgg ñu bañ ko bokkaaleel dara bëgg ñu top ay ndigeelam waye bëgg ñu bayyi lepp lo xamne ne ay njuumtele pour ci ëllëgé bu jambi dajé ak borom kon ala kulli hal ñu ngi ñaan sun borom subhanahu wa taala mi nga xamne moy borom tawfiq lepp lo xamne wax nañ ko ci kàddu gi te mu jup ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax waaye lépp loo xam nag wax nañ ko tamit njuumte nañ xam ne matadik doomu aadama in uridu illa al islaaha mastataatum wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.